maa nuyu ku nekk ci turam ak santam Monsieur le maire Lamine Diallo de la commune de Thiès Nord ñu ngi lay remercier ci invitation bi nga defal Benno Bokk Yaakaar di saluer initiative bi ndax lii mooy li nga xam ni moom président Macky Sall woote ànd ci ak le président Idrissa Seck muy unité ngir defar Sénégal ñu ngi saluer bu baax courage politique bi nga xam ni le président Idrissa Seck def ñëw ànd ak son excellence le président Macky Sall ci biir Benno Bokk Yaakaar pour lu jëmale Sénégal kanam kon tey bu ñu gisee ci mobilisation réew mi dinañ xam ni li ko waral mooy li dox ci diggante président Macky Sall ak président Idrissa Seck loolu moo wàcc ba ñëw fii ci base bi ci Thiès Nord loolu moo waral suñu teewaay fii ci mitinu réew mi ndax ñoom engagé wu nañ ci ginnaaw président Macky Sall encore accompagné ko ci liggéey bi looloo tax ñu ànd ak réew mi fii ci Thiès Nord ci biir Benno Bokk Yaakaar kon xel war na mën a dal ci Thiès. ndax lu ñu yàgg bëgg la li tax ñu bëgg ko mooy booloo amee ànd am bénéfice yu population bi suñu lépp population Thiès moo ko waral fii ci commune nord muy guddi muy bëccëg suñu combat politique population bi moo ko waral kon tey jaadu na bu ñu fekkee lu mel nii fekk fii suñuy camarades yi ñu bokkal affaire fekk fii suñuy naataangoo Benno Bokk Yaakaar bi nga xam depuis 2009 ñu ngi ànd ak président Macky Sall muy une grande première dans l'histoire politique de ce pays une coalition boo xam ni boobu ba tey mu ngi fii gagné toutes les élections ànd koog son excellence le président Macky Sall kon am nañ yaakaar ci Thiès ndax bu ñu demee ba nga xam ni tey booloo nañ nekk benn ah intérêt Thiès na am nañ yaakaar ni Thiès dina gën a jëm kanam ba ñu yëg ko fi ñu ko mën a si ñu ko war a yëgee ànd ci ak ki nga xam ni mooy président Idrissa Seck Nous avons un ak son excellence le président Macky Sall ngir defar Sénégal kon monsieur le maire ñun du ñu guddal dañu lay féliciter ci initiative bi di wax ni lii mooy solo ànd Macky Sall ak président Idrissa Seck ngir Sénégal jëm kanam sant nañ yàlla ñun waa APR bi nga ni le président Seck a compris que le Sénégal de demain les jaar ci unité ànd son excellence le président Macky Sall pour li nga xamni ñoko ñoo ñu mënu ko jariño ba Sénégal kenn ku ne mën ci gis bopam ma ngi leen di sante di leen gërëm.